mbokk yi xam ngeen ne semaine bi nu génn lu neex amoon na ci làmb semaine bi nu génn promoteur bu mag woote woon na ci làmb muy Baye Ndiaye borom alburaax mbokk yi woote combat bu am solo doxoon ci diggante Eumeu Sène ak ki nga xamante ne nii moom mooy Tapha Tine bantamba dem fa liggéeyal nañ fa liggéey bu am solo mbokk yi laataa loolu xam ngeen ne ñi ngi waajal bisu le 19 ndax le 5 le 12 ak le 19 mooy bis nga xamante ñoo tegloo ci mois de novembre muy ay bis yu mag muy ñetti dimanche yu tegloo yoo xamante ne bu ci nekk dañ ciy am combat bu mag mbokk yi ñu amoon Modou Lo Ama Modou Lo génn ci am dam ci digg kawam Ama ñu amaat mbokk yi Eumeu Sène ak ki nga xam mooy Tapha Tine Tapha moom moo am dam ci kaw Eumeu Sène ñu jaajëfal may félicité suma ay techniciens yi nga xamante ne ñoom laa andal ci liggéey bi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax Abdoulaye Ndiaye Matar Karajo Pape Mamadou Mbaye di leen remercier Cissé di leen remercier yéen ñi nga xamante ne yéen yéen a ñëw jàpp ci liggéey bi mu yomb ñu leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal suñu borom bàyyi leen ak seen xel dafal leen xewal ci lépp loola nekk mu doon ay ndam ci yéen mbok yi gis ngeen làmb ja ni mu demee woon am na rek benn coow bu ndaw bu fa amoon ci diggante Mamadou mbay ba gaa ñi foog ni les services service d'ordre la ba gaa ñi foog ni FDS yi la non non du du force de défense et de sécurité yi nekkul ñoom laa amaloon jafe-jafe maa ngi ko amal ak waa CNG ki ñuy wax le vice président du CNG chargé de la lutte avec frappe moom dafa am problème personnel ak man moom dafa am lu ko naqari dafa am lenn loo xam daf ko metti ci man te moom juruma junduma du sama papa du suma yaay ba moom li mu bëgg ma mel man wala li mu bëgg ma doxee man noonu laay doxee déedéet man dafa am ci luñ ma yar dafa am ci luñ ma xamee dafa am fu ma juddoo dafa am fu ma bokk foo xamante ne nii sama papa ci dëgg la nekkoon ci làmb ba tey jii mu nekk ci tey doomam ñëw ci di ci liggéey bu ma ci defee lu dul dëgg rek jëw suma papa bu ma ci defee lu dul dëgg ñi daan bëggee suma papa tey dinañ kii donnuwul baayam te bëgguñu loolu moo tax ci dëgg rek la ñuy dox may sa njaay la ñu amal problème mais nekkul service d'ordre bi ñu leen di xamal ni encore une lépp lu liggéey bi laaj Aïcha Gaynde Njaay lépp lu liggéey bi laaj pour bégal leen yéen jar ngeen ko lépp lu liggéey bi laaj pour indil leen loo xamante ne scoop la wala pour indil leen loo xamante ne nii loo leen gisul fen yéen jaral ngeen ma ko jaral ngeen ma ñu génnee ma enceinte garaawul xëy na bu ñu ma génnee enceinte bi mënuñu ma génnee arène bi te liggéey bi lépp ci biir arène bi la kon mën sa morom duma ko bu ko may dara gis ngeen affaire yi job bu leen ñu si may dara affaire job bi nii ñun ñaanuñu dañ koy ñoo ko fa am te dañ koy jëli bu neexee yàlla sunu borom mais balaa maa sori jaajëf góor yàlla la jeunesse sénégalaise ñu ngi leen di remercier ñu ngi leen di féliciter yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaanal gis naa taxawaay bi gis naa gis naa gis naa ni ngeen def keroog esaat bi sama rangoñ sax wadd na te loolu moo ko waddal li ko waddal mooy taxawaay bi ngeen am ci man te jiwuma leen ko defaluma leen ko defaluma leen lu tax ngeen bëggee ma noonu defaluma leen lu tax ngeen def ma nii keroog ci esaat bi waaye yàlla na yàlla saa borom yàggal suñu ànd man ak yéen seen mbégte rek laay sàkku ngeen kontaan rek la ni sàkku képp kuy bëggee làmb képp kuy bëggee bantamba nga kontaan rek la ni sàkku mooy waral yii mais maa ngi leen di remercier bu baax di remercier la presse sénégalaise amuma seen fay suma ay mbokk ngeen rawatina sit internet yi la presse en ligne ñu ngi leen di remercier bu baax a baax keroog seen taxawaay dem nañ ba mujj bi sax altercation am na ci seen diggante yéen ak FDS yi te lool lépp suma jëmm moo ko waral maa leen di remercier bu baax di jégalu nag képp koo xam ne yaa ngi ñuy bëggee tooñu ñu defuñu dara information lañ doon ut ñu fekk ñu ci géew bi pour génnee ñu te ñun amuñu pour génn géewu làmb déedéet géewu làmb dañ ko bokk ak sunu ay nawle nekk fa ñoom moo am lu ñu fa am wax naa leen dañ koy jëli ñaanuñu ko kenn kontaane nañ leen bu baax a a baax a baax kontaane nañu suñu technicien ko waxee Babacar Diagne Sir mooy capitaine bi mooy technicien bu mag bi ñu ngi koy remercier remercier Dame difilke keroog laa mujj da ngaa difilke waroon ngaa ñëw ñu actionné ci kaw waa ji mais sëñ kontaan nañ ci kaw bu baax a baax kontaan nañu ci Ablaye Ndiaye kontaan nañu ci Matar Cissé comme d'habitude mi ngi koy jàppandal mais